ranke yi ak liggéeyal Serigne Touba ak moo na koy mën a may gannaaw suñu borom nangu na nag nu jëfandikoo loolu ci barkeb Serigne kon suñu jort mën naa rafet sunu yaakaar mën naa dëgër su ko defee kon loolu mooy yi nga xam ne war naa ko fàttali mbooloo mi gis naa ñetti li ñaari gént waaye benn benn bi gént la benn bi wax la waaye la tax man nangu ni du gént dama ko nettali Serigne Saliou mu tontoo ma lii dafa am ci nit ki koo xam ne xam-xam dong nga ko yitteeloon ak gëstu ko fu mu dégg waaju baax dem fa moom da nga ko yitteeloon benn bis mu tëdd ci lal gént ñu taxawal bis penc ba ko géntee daa ñëw ne ma dañuy ànd ci sëñ wax ma ko ma ne ko bisimilah waaye nag ma dimbalee su ma koy nettili mm-hmm. su ma ca wàññee dara nag ma ko fàttali ci kanamu sëñ bi su fekkee yokk naa ca lu ca bokkul nag ma ko wax ci kanamu sëñ bi mu bañ caa bokk ba yàlla dogalee ñu mu ne lim gént mooy dañoo dafa gént ñu taxawal bis penc biñ taxawalee bis penc ñene ne bis penc kat li tax ñu taxawal ko mana dañu bëgg wa kër Serigne Touba ñu dugg aljana ba nopi sun borom soko taxawal bis penc mu gént lool té néna liko ci jaaxal ñooñu seen xar kanam mbekté mi ak yuy bo day mel day andak ak tok toqi ndox ñu am am tata ju ñu def mbedd mo xam dañ ko def barrière ñuy dem ba yag am ñu ni wa mbolo mi di dox di dem tamé mu melni dañu bëgg ak bésu tey bii ni mu mel ñoom fu ñu jëm ñun leen aljana ñu ni ñuy mooy ñan mu ni mooy ña àndoon ak Serigne Touba ci ko digil ko dulal barke Seydou Ibrahima Fall lu rek day dee may bi ci bari gi sutura ak laabir gi ak maandu gi ak bu waxee ci lu jëm loola rek loola am ragal yàlla fam tàmbalee ba fam yem Serigne Saliou def na ko ba yàlla dogalee loola am ba ñu yóbbu ko ca dal ba di ko dof jox noonu ko ñëpp xamee bul ko kafe ak yu mel noonu mun ma soo noppee ca loola da nga da ba ma noppee ca loolu dellu si mu ne tekk ba yàgg mun ma li ma tax ma woola kat mooy sàllaaw dama bañ a wax li am ci kanamam ndax dama koo xaw a yaras waaye noonu mu génte noonu ëllëg salah na nga seere lagi bu ëllëgee dara du lagi. soppi ko lay kon ma ni ki nga ba may ko dara ci gis ko fi gis war na ko mu tammim mu àggale may na ko kon ma wax nag yaakaar naa ni kooku nag bu nu soxlaa ci àll bu mel nii wala beneen bu ko gën a sori mu mu gis nu fa war naa yomb ci nun kon nga xam ne kon nag maanaa delloo njukkal rek la bis penc ci tiise ci ko nettalee ni mu ak ni mu ragloo ci ko nettalee ak yaakaar ba ci borom xam-xam yi